maa maag Pape Bouba ñoo jàkkaarloo woon kër HLM yaayam Fatou si la ak suñu kër ñoo jàkkaarloo woon ma yar ko ba muy xale xam papam mbaarik xam ay frère am yëpp muy xale boo xam ne xale bu baax la man suñu kër a jàkkaarloo woon man maay Pape Koumba Gaye bi nekkoon ministre ñu jàkkaarloo woon kër daan ànd guddeeg bëccëg yaayam di ku jàmbaare woon koo xam ne fekkewul taranga Pape Bouba Diop bi Pape Bouba di am taranga booba yaayam du génn na àddina Pape ñoom Aliou Diop moo jox ko confiance am muy frère am Aliou Diop yoral ko yëppam contrat mi mu daan def bitim réew yëpp Aliou Diop ba ko seer woon di sama booy di la xamal ne xale buy dégg ndigal la bu topp ay waajuram boo xam ne HLM gi mu dëkk malgré que man jóge woon naa HLM ut sama kër mais xam naa teraanga yi mu daan def HLM kon man maa ngi seedeen xale bu baax la xale bu waajuram gërëm ay magam yëpp gërëm nañ papam mbaari otom la ko oto la ko utaloon jox ko ko ba muy dund mbaari génn àddina mu nekk ak ay frère am leen ñoom Aliou Diop lu muy def ne frère yi kon ñu ngi koy ñaanal yalla nako yalla xari aljana man Assane ngay jëkkër ay fal maa ko ñaanal xamne ne ni ma ko xamee ñoo jàkkaarloon ko HLM yalla c'est l'international ñepp la metti ñepp la naqari quoi mu doon nit ko xamantene ñepp xam partout dans le monde entier muy def lu doy war ci football def lu doy war ci dëkk bi particulièrement fi mu dëkk muy HLM fi quoi ñun ñop am nañ am nañ kiss franchement parler

dugal fa ceeb diwlin bàyyiwul dara muy acte boo xamante ne lu rafet la parce que du ma ne bëri na ay poro kenn defe ko non du ma wax loolu mais nit ku nekk euh, yaa xam ni nga ni nga ni nga bayee sa xaalis ni nga def ba xam ko ba am ko yaa xam kon euh, moom acte boobu mu def noonu rek franchement parler dañ ko si dañ man dama ci kontaan te ñëpp ñëpp même seede lañ wax quoi Papa Bouba Diop buy génn seen kër doo ko gis dafa rus du du siggi xool nit ba ñax buy dem jàkka sax day ut ko mu ànd pour nit ñi bañ ko gis ndax ruslu teey dox ndànk wax ndànk wallahi azim bésu la bésu tiis la franchement li ñu mën a wax daal mooy que ne ñàkk nañu un coéquipier ñàkk nañu tamit un homme de valeur ñàkk nañ ko xamante ne franchement sigil na Sénégal ci franchement dans les plus hautes sphères en fait du football mondial. nekkoon doon jaraaf senior pendant deux ans waaw ah, footballoon doon nañ ko

moom nan lay def ba nga xamante nan ngay màggaale pour dans la vie active après bu dul guddul football bi sax nga mën a nekk dans la société ak euh, nit ñi si si si si respect quoi. mu mel ni que tey Tëngéej dañu am gis bu méttee méttee métti métti boo ne dafa dal si ma def si àddina ba ñu déggee nouvelle bi ba tey ñun am ñuy jàmm ñun Tëngéej xanaa man sama borom ka sa demoon na si Tunisie sama football ba wax dëgg yàlla jaloore ga nga xam ne ñëpp kontaan nañu ñëpp sigil nañu boo gisee tey ñun ñëpp ñu taxaw fii ñun di jooy fii ndax sargal Pape ba moo tax ñu sagal tax nit bu la sagalee da nga koy sagal moo tax ñu taxaw ñun ñëpp di ko tey mbooloo may fàttali man match 2002 ba mu dugalee biwu France ba la may fàttali bés ni ki tey moom moom moom laa sentir fi mu nekk ni guddi yi moom laa sentir loolu moo tax dama doon génn mais mënatuma génn fi ma taxaw si tali bi sargal Pape Bouba bañ jenc ka ba ñëw may soog a ma sama kër muy baax rek waa asalam jooy lu baax li mu doon def yal na kese yàlla fay ndax dégg bu koor ma saa jot ñëpp suukari koor ceeb yi xoo yal na ko yàlla fay fa mu tëdd fa mu jëm yal na dàq fi mu jóge yàlla nag yàlla nag xanaa mu dëkkoon samay mag dëkkoon ak samay rafet lu mu ma saa di joxe samay mag am si loo xoolee njur njàppali loolu ma bokkaa ñoom dayax baay ba feebar boobu ba tey ba dégg ne jóge na fi ma am lu ma ndax xarit torop waaye yàlla mii ka jël yal na ko yóbbu fu dàq fi bu fi mu nekkoon njobootam yal na si yàlla tey day jooram ci barke Moustapha yal na daje marke jël ma ne yàlla fa mu tëdd maa ngi koy ñaanal wallaay dañu bëgg rek baax gi mu baax ndax boo baaxee ba ñëpp wax ka yow baax nga loolu moo tax ba sa génn na dama kay toog rek di xool ndax samay bëgg dëkk asalam loolu moo sama. que defal nañu teraanga ñun ñu dëkk HLM ak HLM euh, euh, ak Tëngéej bi yëpp mais dama lay wax que ne Pape Bouba numéro am 19 boobu soirée juru ko nii rek ci neen quoi parce que boo gisee bii bi bi mu déggee ba léegi boo koy compter ci ren ça fait vingt ans.

Pape Bouba moom nit mënul wax lu ñaaw ci moom parce que defal na ko Sénégal gépp am na ñoo xam ne xamuñu ko te ñu ngi koy ñaanal am na ñoo xam ne mosuñu juddu mosuñu gis Pape Bouba parce que bii ñuy judd ay xale lañ te tey ñooñu ñu ngi seeni vingt ans. Hmm? non ba neex nee naa la man lii du du naxar ci man parce que dama ci kontaan ak xol bu neex. international eh, maa ngi leen di jaale Pape Bouba parce que Pape Bouba nitu ñëpp le woon nitu waa Tëngéej ñëpp la woon. Eh, man yaa Pape boo yàlla dafa def ma tel ko xam arbitré ko sur le plan local muy nawetaani fii jóge ci nawetaani ma arbitré ko jaraaf wàllu passé ñu ànd si le plan africain un peu partout def nañ campagne yu bari si le plan africain maanaam kon nag tey ku ñëw si bisam bi nga xam ne kii ko amoon njariñ la si dëkk bi amoon njariñ waa àddina bi yëpp parce que lii moo koy firndeel ku baax la xale bu baax la xale bu yaru la su meloon neneen nu meloon no mel tey du am li mu am